Euh, tollu nañ foo xam ne nii à chaque fois tey sa wàllum liggéey lañ lay fekk ba pare mën a la ci ba pare yóbbu la ci li nga xam ne moo di ci wàllum yoon est-ce que tey d'accord nga ni tey euh, comme li ñu daloon ci côté Mame Mbaye Niang war na mën a continuer di dal li nga xam ne moo di presse en ligne parce que ñoom seen liggéey rek lañ nekk di def en fait. waaw loolu dafa dul yoon parce que le cas de Mame te mu tegoon daan bu métti boobu waa Allô Sénégal mm-hmm. ñu jàpp ay jàmbaar. Mm-hmm. ak ak a ak keneen ak keneen yaakaar naa ne ay ay lañu dem nañ ba ba succomber à tout ça. Mhm. ba ñu génn ci jàmm. Mhm. kon duñ demee tamit ba ñu bugg a ba a anéantir aussi tamit des jeunes. Mhm. yoo xam ne yaakaar naa ne ñoo ngi nekk à l'exercice de leur fonction. ñoo ngi daan seen doole di wane ne kat que ñoom ay jàmbaar lañ. di faire passer des informations convenablement kon nag yaakaar naa ne aussi tamit waruñu seetaan. ak ce nouveau régime bi nga xam ne le président mhm. Bassirou Diomaye Faye mhm. ak son premier ministre Ousmane Sonko mhm. nañu may presse en ligne bi wala presse sénégalaise bi ñu def seen liggéey convenablement mun nañ dàkk na d'accord nag diffamation des propos diffamatoires nit yëkkati ko wax ko nit te tegu ko ci bi ay prop ay ay ay ay yu leer yaakaar naa ne loolu moom daan mun na tegu sa kaw mais juste relater les faits qui suit ñu ne kat Aby gisuñu ko kër Viviane. dëgg mais amuñ droit wax ko. Hmm. mais hmm. ñun on est dans quel pays. Hmm. on est dans un pays de démocratie. dëgg la. liberté d'expression. libre aller. laisser faire. laisser passer. kon nag loolu bu ñu demee ba toll ci. kon am nañu droit ñun tamit ñu exprimer wu con convenablement. liberté d'expression ci journalisme la bokk. dëgg loolu mooy suñu premier droit fondamental. Euh, boo ma baalee rek ma liiral la communiqué bi nga xam ne mouvement des reporters technicien du Sénégal def mm-hmm. nañu ko mm-hmm. ginnaaw ba ñu gisee lii nga xam ne ma ngi commencé di nekk benn genre ravage boo xam ne Habib mm-hmm. ma ngi koy teg suñu kaw ñu liiral ma liiralal ma liiral la rek euh, communiqué bi nga xam ne bàyyeeku na ci groupement des reporters techniciens du Sénégal nga xam ne président Malick Touré moo ko jiitee secrétaire général si rajo. Mhm. Euh, ñoom nga xam ne aussi tamit ñoo ngi béy seen waat di mhm. euh, le groupement des reporters et techniciens du Sénégal GRTS. Mhm. dénonce avec la plus forte énergie le comportement de l'artiste Abindour. qui par ailleurs serait à l'origine d'une série de plaintes contre confrères et consoeurs. Rappelons, en la liberté d'expression a été inscrite en tant que droit fondamental à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux des Nations Unies. Mmh. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Mmh. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité mmh. publique et sans considération de frontières. Mm-hmm. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectées. Mmh. La liberté d'expression existe lorsque les citoyens peuvent exprimer leur opinion, y compris les points de vue critiques à l'égard du gouvernement, sans mmh. craindre de conséquences négatives telles que l'emprisonnement ou les menaces de violence. Mmh. Cependant, en vue du déroulement néfaste de la situation, mmh. nous interpellons les autorités étatiques à prendre part et à faire comprendre à Abindour que ces hommes de médias ne sont là que pour informer convenablement. Hmm. yaakaar naa. am na solo communiqué bi. Hmm. moom le groupement des reporters et des reporters technicien du Sénégal des Sénégalais pour ñëpp aussi tamit ñu bàyyi ci xel di mhm. interpeller aussi tamit le gouvernement du Sénégal mhm. ñu gën ci bàyyi xel parce que c'est un message fort boo xam ne ñun le groupement des reporters et techniciens du Sénégal jox nañ ko mhm. à l'endroit de la de du gouvernement bi nga xam ne su le sous le régime de de de de Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nga xam ne aussi tamit ñoom ñooy gérer euh, lépp li nga xam ne aussi tamit mooy wàllum yoon di ñii nga xam ne Aby Ndour porté na leen plainte defuñ lu dul def seen liggéey normal normalement. Mhm. alors Mass mu nekk euh, ci euh, communiqué bu am solo boo xam ne liir nga ko. mais ci say biir euh, communiqué bi dafa mel ni ne dégg naa ci ci ci li nga xam ne yéen a ngi koy waaj yéen ñi nga xam ne yéen a yor presse en ligne bi. tey du ngeen def les bras croisés da ngeen a fas yéenee jóg jàmmaarloog euh, li nga xam ne xew na jamono ji ñu toll ak li nga xam ne mooy waaj a ñëwaat ci presse bi parce que bëggu ngeen bàyyi euh, benn yoon yenn yu mel nii di leen dal euh, ci li nga xam ne mooy seen bàllub liggéey waaw waaw comme ni ma la ko waxee nu dinañ poser suñu premier acte. Mhm. suñu acte bi mooy ñi nga xam ne cybercriminalité waaw cybercriminalité c'est bon cybercriminalité def nañ liggéey bi. ñii nga xam ne aussi tamit euh, ñoo ngi ñoo ngi cybercriminalité. Mhm. te ñi nga xam ne ñoo ngi béy seen waar. Mhm. ñu nekk des gens compétents. Mhm. des gens rigoureux. des gens des gens aussi professionnels et respectueux. macha allah xam naa fa ñu bëri. biir cyber. ah. te ñu doon ñoo xam ne ay références lañ cyber bu ñu la convoqué rek. pour déglu la xool ndax yow. lu ñu lay inculper ndax mën nga ci dugg wala duggoo ci. dëgg la bu fekkee duggoo ci duñ la téye duñ la ta on les respecte la cybercriminalité mm-hmm. man ñu ñu ñu ma fonk la ñu mm-hmm. euh, mais aussi tamit euh, li ma leen di ñaan rek mooy rek nañu nañu veiller ce que Aby Ndour mii mm-hmm. mu bañ leen euh, dugal ci loo xam ne yaakaar naa ne ñun yaakaar naa ne suñu liggéey rek lañ nekk te yaakaar naa ne tooñu ñu ba ñu war a dugal bu ñu tooñee nag incha allah nous serons nous serons vraiment nous ferons nous serons vraiment la à à à à à demander pardon a présenter nos excuses te yaakaar naa mooy li war euh, li ma la bëgg a wax rek ci gàttal rek mooy mooy mooy Vito euh, dinañ suñu acte bu ñu njëkk a def mooy. Mhm. dinañ accompagner nos mhm. confrères et nos consoeurs. Mhm. ci combat bi. dinañ leen accompagner. ñaanal leen njekk xool aussi tamit du sax ñaan njekk je maa ngi def erreur du sax ñaan njekk pour le moment. mënaguñu ñaan njëkk parce que xamuñu le vrai fond du dossier. d'accord d'accord mais lu ñu mën a xam mooy. dinañ leen accompagner soutenir leen. Mhm. may leen doole. Mhm. wax leen ne que vous n'êtes pas seul. non non non ce combat on va le mener ensemble. Mhm. voilà incha allah rabin. mu nekk mu nekk lu am solo mais damay insister ba léegi ci li nga xam ne moo di euh, euh, plainte boobu jóg ci suñu confrères yi parce que boo xoolee ah, réew mi dafa mel ni ne euh, tey presse en ligne bi li mu fi apporté bëri na. am na information yoo xam ne yu ci bëri tey presse en ligne bi ñoo koy joxe te yi nga xam ne moom la sénégalais yi gën a soxla ñoom ñoo leen koy jox à temps réel mais damay gis ñu ci bëri euh, ñu ci bëri tey ci sénégalais yi tey bu ñu déggee lu mel nii dafa mel ni dañ ciy xaw a kontaan wala ñu xaw cee mel lu ci bëgg ci li nga xam ne Euh, tey euh, moom sénégalais yi def euh, tey kii nga xam ne moo di Abou Ndour def na ko ci contre li nga xam ne moo di presse bi ndax damay gis yenn réaction yi naan ay presse bi ñoom c'est-à-dire lien te ñoom lépp lu ñu soxla ci presse bi la ñuy def mu ñëwaat ci beneen question kii di nga xam ne moo di Abou Ndour artiste la am na fi ay événement ba tey presse bi lay woo mu ñëw daal di koy couvrir li nga xam ne moo di ay événement am kon tey bu xewlee presse bi daal di koy jàppale bu nga xam ne maanaam réussir na li nga xam ne moo di ay événement am est-ce que tey c'est normal moom it mu war a tourner waat ne day jàkkaarloo waat ak li nga xam ne moo di presse bi. Hmm. taal ko. Hmm. Hmm. d'accord. continuer ma ma ma ma ma ma ñëw pour may ma tuuti ma ñëw foofu nga changé ma kii bi comme ni nga ko waxee xam naa ni boo ñëwee foog nga gën ma leeral jëlal ma bii jëlal ma kii nga changé ma boobu xam naa ni comme ni nga ko waxee fale ko nga gën a xuus foofu noonu gën ñoo leeral parce que nag il est temps que ñun ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu parce que xam nañ ne lii nii mm. gën a ci ci li nga xam ne. waaw yaa ngi yaa mooy c'est bon ah c'est bon. c'est bon voilà c'est bon waaw comme comme li ma la wax léegi ma ne ndokk ba Amadou Ba doonul président. Mm. Vito dama la koy waxaat ndokk ba amadu Ba doonul président euh, euh, heureusement qu'on a un président un président exemplaire. Mm-hmm. président de référence. Mm-hmm. muy euh, président basiru Diomaye Diakhar fay waaw kon nag bu ñu demee ba président basiru Diomaye Diakhar fay doon président. Mhm. te lépp li nga xam ne dañ ko jël teg ko. mooy li nga xam ne mooy injustice totale. yu mhm. ñëw defaraat suñu réew. Mhm. ànd ceeg Ousmane Sonko. le premier ministre Ousmane Sonko. ñoom ñuy def seen liggéey ànd ceeg justice bu xarañ. surtout justice bu yeewu justice boo xam ne du ñu ñëw nit rek tëj ko ci loo xam ne defu ko sant yàlla. li ñu mun a wax rek mooy Aby elle avait besoin de la presse. la événement am comme ni nga ko waxee ak léegi. Mhm. bëri na ay yoo xam ne presse en ligne bi boole na soutenir ko. Mhm. ba muy ubbi abis Garden. Mhm. presse en ligne bi relaté na ko. dëgg la ba muy am coow ak kii coow suuf ak kii di Pierre Goudiaby Atepa. presse en ligne bi da doon dugal di relaté ay vidéo fa muy nekkee sol musóor di jooy. di wax Pierre Atepa Goudiaby. daf ko toroxal daf ko bëgg a jaay doole. Mm-hmm. ñun ñu ànd ci soutenir ci Aby Ndour. Mm-hmm. dugal ko pas soutenir mais di relater ay information am je veux dire. parce que pas là mm-hmm. mu doonee. ci camp wu Pathé Atépa ci camp wu Aby Ndour. ba yàlla def jël suuf si ba tabax ci Abyss Garden. di liggéey di béy waaram. nekk as ndaw. moom tamit nekk une femme battante. mu nekk modèle. Mhm. kon moom buñ demee ba roy ko ci loolu bu mu ngala bu mu yàq image am. surtout waaw. Mhm. loolu laa am ci lu may wax ci leeral daal surtout loolu. Euh, ndax nag euh, comme euh, fi ma fi fi ma fi nga xam ne daanaka point boobu noonu c'est très important aussi.